société bo nga xamantene ci bon comme ni mako ni mako mëna waxé dal bon yag nañu gis des actes pervers yo nga xamantene ci da fay da fay da fay da fay am ci biir société té ñi koy doxal sama morom lañuy doon ñi nga fi def ay nit lañu xamanteni ci bu ma mëna def ma bari kon ay jeune lañu té yaakar na bu ñu amam xam xamu diiné wala ñu am ñu tagal ci ak yar ak ci té yaakar na ñu loolu kenn kenn xalaat di ko kan ngir gitu di ko jëmale sa diggante ak doom aadama ko ñu bàyyi xel ci loolu baax baax baax xamni am ndaw bu bëggee dem day moytu jigéen day moytu alal neem ñu nag kenn ko wut ndax jaamu yàlla dafa ànd ak wut lo nga xamante ni si dina la sutura waaye nag da ngay jiital jaamu yàlla ndax leneen lu la ca fekk si nga mën koo cee kon nañ ko góorgóorlu loolu baax baax suñu diggante ak yàlla ak suñu diggante ak xam-xam ndax xam-xam boobu mooy tax nga xam yàlla xam-xam boobu moo tax ñu xam nan la ñuy mën a maîtriser suñu diggante ak suñu diin ba dara bi ñëw euh, daal di ñuy dal di dal daal di ñuy yàqal lool macha allah ñu góorgóorluwaat tamit xam ni yàlla suñu borom daf ñoo bind ñuy ay ndaw mu bind ñu ci ñàkk kàttan te kàttan jooju ñu ñàkk si tamit bis day ñëw yàlla dégg ñu kàttan muy euh, ñu koy wax âge d' adolescence âge d' adolescence boobu noonu képp ku ca toll da nga ko war a jëlaat nga delloo wax ko yàlla suñu borom ndax wax ji bëggul mu gudd waaye boo boo boo doxantoo ci suuratu Ruum aya 53 yàlla suñu borom daf koy wax allahu lazi xalaqakum min duxfin summa jaxala min baxdi duxfin quwwatan summa jaxala min baxdi quwwatan duxfan wa shaybatan yaxlaqu maa yashaahu yaxlaqu maa yashaahu wa huwa alxalimu wa huwa alxaliyu wa huwa halimun halim muy ay mo xamante ci yalla sun borom ni ci ciy ci dundu doomu aadama ci ñetti etap muy ci etap bi nga xamante ci si dund nga ci su kaw suuf ñak doole lol waaw ah, mu ni yalla sun borom ni moom mo ñu bind ci ak ñak doole mu wëlbati bi ci ginnaaw ñak doole yow mu dénk ñu kat ci ginaaw ñak ci bir ñak doole yow yalla mu ci wax ni mi ci bëgg won ni fofu lu fa am moom moy ko degg te lu fay dox rek suñu digënté ak moom moom waaye dafa wëlbatiku nag dénk ñu ak xel te kàttan boobu ñu dénk ak xel doon na lu nga xamante ni si foofa lépp luñ waral suñu bopp ñu ñoo ko def waaw te lépp luy tax ëllëg kàttan yàlla suñu borom xañ na ko parce que ci biir aaya bi ñu wëlbatikuwaat ba pare ni euh, wëlbatiku ku euh, wëlbatiku xañaat leen kàttan yooyu noonu ci ak mat waaw ndax moo tax ñu ni mat du ñàkk boo demee ba tollu ci mag yow fi mu toll nii la nga xamoon ca ngay nekk hmm. waaye du doon lu ñuy yokk moo tax mu di mu wëgatu ko xañ leen kàttan jooju noonu kon kàttan jooju bala ko yàlla xañ nañ góorgóorlu ko li ñu war suñu diggante moom ñu def li ñu war a xam suñu diggante moom si nag ñu góorgóorlu ci nga xam ko ce qui veut dire que euh, le Coran est, est tellement riche en, en enseignement euh, lépp lu ñu soxla rek ak lépp lu ñu war a xam ba xam fa la ñu war a teg suñu tànk euh, yàlla suñu borom wax nañ ko ci biir waaw c'est un domaine nag un passage faaw nit ki nangoo ubbi xelam pour mën a xam dëggantaan njaay yàlla suñu borom li ñuy wax lan la ci jëm ndax bu yàlla ne euh, moo ñu bind ci néew doole ba léegi expliqué lan moo tax néew ba ba pare wëlbatiku ni dénk leen kàttan ak xel kàttan boobu ba léegi yàlla suñu borom waxul lan moo tax mu dénk ñu ko ba pare wëlbatiku ni leen bis dina ñëw kàttan boobu noonu ak xel moom mën na ko ko ba mu set wécc def leen ci ak màgg.

mais dafa am ay ponk yu am solo yo nga xamante ci ndaw dafa ci wara a xel lu dul julli ak wor kessé wa ndax bokku na ci ni tatak doomu aadama nangoo liggéey daan sa doole ñatt te yalla rek tax léegi nak loolu am lu léegi dañuy ñatt te alal tax lo tax amatu ñu dal amatuñu tal talatuñu eh, suñu njaboot ñu suñu doomu yi defatuñu dara foo fi gis rek doom xalé bu ndaw ngay gis ci mbedd mi muy taxawal parce que bàyyam dal ko ndayam dal ko doomu aadama moo leen jiital te yar suñu njaboot yi teg leen ci yoon dafa bokk ci jaamu yàlla bu gën a kawe ci ay ci ci ci ci ci ci ci euh, ci ñi nga xamante si dañoo doon foofu noonu kon ñu góorgóorluwaat bu baax a baax ci suñu bopp te xam ni ñun ñàkkuñu dara lépp lu ñu lépp ñu amul rek dafa fekk gëstuwaat ñu suñu ginnaaw man lépp lu may def exemple bu mën ci doon man sëñ Tuubaa moom laa koy jël te bokk na ci euh, li nga xamante ni si mooy xitma ba sëñ tuba solo am solo bu am solo tax mu bind ab téere dubbee ko xidma muy liggéey ñak pour sa moroomu julli te yalla rek tax mu doon loo nga xamante si dina tagal nit ci lu koy dindi ci reuy dina tagal nit ci lu koy lu koy dëggloo aw am dina tagal ci nit aussi tamit lu koy yok ak yalla te yaaka na ñett yi ci kum mu dajee dëgg alalu àdduna ab yar ak nangu sa moroomu julli kenn ñu la tere aw di nga raw fi raw fi ñu jëm te loolu lépp ce sont des situations yoo xamante ni si Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul eh, rétablir na ko ci dans notre société pour ñu koy dund ba ëllëg incha allah rabbi ñu mën a téye suñu bopp ba dara du ñu jaaxal maam Cheikh Ibrahima Fall eh, buur la woon gan bi la woon wàllu la woon borom xam-xam la woon bokkoon na ci ñi nga xamante ni si eh, li li gën a jigéen diine ñi ko ko ñu gënoon respect maam Cheikh Ibrahima Fall ci la bokk ndax ku daan dem bay boy booy la di taxee benn tànk benn aaya beneen tànk beneen aaya buy jeex la fajar di jot yaakaar naa ne ko gën laa ci jéggi ne yóbbul te ba mu ba mu ba mu jàkkaarloo ak Cheikh ahmad Bamba Xaadim Rasul deful ci àdduna len lu liggéey di ko jox ni ni muy muy muy dundali taalibe ak di dundal di kon yaakaar na sega mag ñooñu ñoo ñoo nango woyefal seen bokku wàcc sukk jaamu yalla liggéey xitma jëmale ci seen moroom jullit ba yaakaaruma ñun ñi nga xamante ni si tekk ñun dara ndax ñu dul ay wàllu duñu dara ay nit yu woyof lañu donc kon nañu delluwaat suñu bu baax a baax a baax xam ni àdduna lu fi doomu aadama ko may lépp lu fi doomu aadama ko may ak njub nañ góorgóorluwaat baax a baax a baax may lancer appel à la jeunesse ñu suñu bopp bu baax a baax a baax te xam ñi ñu enseignement ñàkk ñu xam-xam mag ñi bind nañ bàyyi fi alxuraan ji mi fi nañ ci gëstuwaat gëstuwaat suñu ginnaaw farataal suñu diine te xam ni moom mooy li nga xamante si mooy tax suñu mag yombuñu farataal suñu diine xam yàlla suñu borom gëstu farataal suñu diine xam ni mooy tax mooy li nga xamante si moo ñuy tax a texee ëllëg lépp lu ñu def te boole luñ ci diine loolu séeréer yi woon na ñoom nañ góorgóorluwaat suñu bopp baax baax baax te xam ni àdduna yàggul dund dund dee dund dund. kon lu jaral bàyyi xel la dund googu nag ñuy dund di ko dundaat nekkul ci lenn lu dul diggante bi nga xamante ni si yàlla suñu borom dégg nañu kàttan kon nañ ko ci liggéeyal jaamu ko ci def ci ñu war ba insha allah rabbi ëllëg ñu mën a am gërëm ñu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax bàyyi waa suñu xel suñu njaboot bi ak suñu way bi lu jar bàyyi xel la ndax lu la wéy ñu yombalul ci àdduna du la mos a yomb ndaw ñi seetlu naa euh, phénomène boo nga xamante ni respect bi dafa des envers nos te képp ko nga xamante ni si yaa ngi dund ci kaw suuf te respecté woo say way dara du la si àdduna da ngay saxaar doo tàkk nañ jaamu suñu yaay jaamu suñu bàyyi teg leen fañ war a teg respecté leen ci ngor ci diine ci diine ak ci parce que fi mu ne bi ñu toll yi teg seen doom ci diine sax bareetul waaye nag ku képp ku noppee dégg ku la naan defal nii doon sama te boo doonee sama mu bopp war ngaa xam li lay jëriñ war ngaa xam li lay gàllankoor te li ñuy jëriñ ñu bokk ni ci ñu xamaat suñu diine bu baax a baax a baax baax kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax baax macha allah yeneen ci sallallahu alayhi wasallam sallam daan na daan na daan na daan na joxe ay ay ndénkaan yo nga xamanteni ci di joxewu na juróomi ndénkaan ni na ci ku nekk bàyyi bàyyi xel muy na nga sam sak ndaw bala ak mat di ñëw na nga sàmm sa ndaw na bala ak mag di ñew dafa ñuy wan ne li nga xamanteni si tax suñu mag yomb mag dafa jafe dafa miti ci suñu ndaw rek bay faago te doonul lenn nak du alalu ñom du ay kër yu rafet du ay auto yu bari gëm yàlla la nangoo liggéeyal diine nangoo jaamu yàlla nangoo dëxi suñu bopp ci li nga xamanteni si la yalla bëgg ma ma ma sha allah muni na nga sam sa wir bala ak di te yaakaar naa ni ñun ñu toll suñu diggu doole kenn gënuñu wér mm. waaye mag mi nekk à l'âge de soixante-dix ans ndax mag te ku kon nañu góorgóorlu suñu kàttan gi ñu yàlla dégg ak wér gi ci concentré wu ci nga xamante ni si moo ci moom ba incha allah rabbi bis bu loola di ñëw yàlla suñu te yëngu ko ndax ak mag ku ci yàlla gestoo li nga sonn allah mu bokk ci tamit euh, mu ne nga nga nga sàmm sa am-am balaa ñàkk di ñëw te bokk na ci li nga xamante ni si moo jar gën a bàyyi xel ci âge bi ñu toll ci jël ci fo ci dem ay boîte ci toxu yàmba di ci di ci tëddee jigéen ju ñu di def lu bon dafay tax suñu diine mu toll xalaatuñ ci lenn bu yëg bu yëkkati daje fa ak ay jigéen def lu bon te loolu yaakaar naa ni bokkul bokkul ci ndénkaane yi nga xamante ni moom la kon euh, suñu am nañ ko sàmm jëmale ko ci di ci di ci dimbali jaamu ne mënuñu ko ndimbal waaye koo yoreel koo yoreel koo yoreel ndékkeem añam reeral kon nañu góorgóorlu ñu seetaat ni ñuy dimbalee nit ñi nit ki boo koy dimbali mu koy dimbali ba dootu la soxla loolu mooy tax dimbal ca bu la ci bu la ko yàlla dénkee waaye gis naa ci Sénégal ñi fi dimbali nit ñi ñëpp yàlla dénk na leen ko waaye suukar ceeb bi ñu jënd ko mel ni moo leen neex nañu jàpp ne nit ñi ci ñu avancé ba insha allahu rabbi kooku day wari keneen ku mu dimbali waaye lu xaar ko dimbali kon alal jooju ñu yàlla dénk étant jeune nañ ci góorgóorlu liggéeyal ci yàlla dimbali ci mbokk suñu suñu suñu suñu suñu mbokk yu masha allah mu sam nga jot bala am ñak jot di ñew. te yaakaar naa sam sam sam sa jot moy nga ci am nga am tout temps réglementaire bo nga xamante ci dans la vie bi la yalla dégg étant jeune di ko di ko di ma gérer muy liggéey jaamu yalla. macha liggéey jaamu yalla. liggéey gëstu wuti xam-xam di nga dem ba di nga tollu fo foo ci aduna mu do dem mu do dikk foofu ab jot amatu kooku moy ki ñak jot ki nga xamante ni si mënatul dem mënatul di kooku ñàkk dem yaakaar naa ne kooku xam-xam yombatu ko am-am yombatu ko kon nañ góorgóorlu fii ñu toll nga xamante si am nañu jot mën nañoo dem mën nañoo dikk ñu dëgëñu ci liggéeyal yàlla ci wut xam-xam jaamu yàlla ak wut loo xamante ni si am-am bu ñu leeral macha allah mu ni euh, sàmm sa dund balaa dee ñu ala kulli xaal xam nañ ne ñun ñëpp euh, ci suuf la